daa di wusa def ay ndëngtee waaye nag moom Barthélémy Dias nee na réew moo xam ne bu ñu demee ba ñenn ci magistrat yi maanaam di def ay njuuj njaaj di def ay complot loole nag musiba la koo xam ne maanaam jéggi na dayoo moom Barthélémy Dias nee na nous sommes pas dans une moom bu ko kenn wax ci réew mi ndax nekkuñu ci démocratie ndax Sénégal amul démocratie moom Barthélémy Dias daa di sa yokku na république sénégalaise bi jamono ci danger ministre may jéem a fakkatal di ma andil nag ay ñol ñola waaye nag na ko tay moom Barthélémy Dias nee na yoon moo ko may mu daal di tabb ab directeur de cabinet ak ab chef de cabinet waaye nag bu ko tabbee ba pare ki nga xam ne mooy préfet moo ko war a approuvé maanaam moo ko war a dëggal waaye nag préfet dafa lànk ba tëdd sa naaj wa te nag loolee Antoine Diome moo ko ko sant moom Barthélémy Dias maire Ndakaaru daan na sa yokku ne maanaam maire Ndakaaru mairie bi ci boppam dañoo am nag sañ-sañ am li nga xam ne mooy ay policier waaye nag préfet bu Barthélémy Dias doomu Sambol Dias bi bëggoon a recruter ay agent de sécurité ngir nag mairie bu Ndakaaru loolee tamit dañ ko ko lànkal ndax dañ ko wax na ko boo leen recruter ñun duñ ko approuvé te nag bu boobaa kenn du leen faye Barthélémy Dias daal di sa yokk na nag jamono ji Antoine Diome dafa jël ay wëyokk Samba Boye andi leen fi nga xam ne nag mooy sama koñ sa fa ma dëkk bëgg faa andi nag mbirum wayu waaye nag ñu ko jëflante ak moom ndax amul kenn ko ragal ci réew mi yéen kay gi de la Réveil Quotidien ñu xëy ko fa moom Barthélémy Dias daan ay bandi la jël andi ko sa koñama yéen kaay gi de la sa ñu xëy fekk fa na cadre yi nga xam ne ñoo bokk ci parti bi di Pastef ñoom nag daat nañuy woo kilifa dina yi nga xam ne nekk ci réew mi ngir ñu waxtaan ak Macky Sall balay bëy di way mbuus rawate na ci lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature bi ndax nag ñoom Bassirou Diomaye Faye nee na kilifa dina dañoo war a wax ak Macky Sall ndax nag bu dee waxuñu ak Macky Sall ay nit mën nañoo deewaat fii a diwaanu Mbuur mandat nañ leen dépôt dinañu leen àtt fukki fan ak juróom ci weeru novembre Pape Alé Niang journal bi nee am na retour de parquet tey ji lay janoo ak procureur journal bi du l'Observateur nee na jamono ji nag enquêteurs li nga xam ne moom la ñuy wër maanaam kan mooy jox ay information journaliste bi di Pape Alé Niang yéen a gi délibération nee nag message bi nga xam ne police yëkkati woon na ko maanaam bi ñuy déglu Ousmane Sonko pexe yi nga ne police doon na ko nasa ba tuddee Ousmane Sonko Oscar sociaux yi loolee tamit laaj nañ si Pape Alé Niang waaye tamit daat nañ koy laaj ci lu jëm ci wàllum François Mankoba ndax nag Pape Alé Niang def see defoon li nga xam ne mooy ab live fa waaye tamit enquêteur yi laaj nañ ko lu jëm ci wàllum rapport interne bu gendarmerie waaye nag loolee lépp dimanche lañ ko laaj ci altine ji nag ba ñu laajee Pape Alé dafa lànk ba tëdd sa naaj woo bañ leen a tontu yéen a kaay gi du source nee na téléphone Pape Alé Niang jamono ji la a kaay jëm ndax nag procureur jamono ji moom dafay xaar njiitul tribunal bi daal di nag désigné ab juge d'instruction yéen kaay gi la témoin daal di xëy wax ci contrat yi nga xam ne moom la ñuy wax ne ministère bi ñu dénk wàllum environnement moom la jëndee woon wàllum arma journal bi nag nee na ba léegi pënd bi wureegul la ndax am na benn mauritanien bu tudd Moustapha Limami Chafi kookee nag moo boole état bu Sénégal moo boole kilifay Sénégal ak ki nga xam ne moo leen jaay arme yi ñu naan ko petit boubé yéen i kaay gi di bés bi nga xam ne moom ngeen doon dégg toll ci benn benn milliard te diwaanu Thiès te ñuy si tudd nag doomu ministre Mbaye Ndiaye ak ay complice ma ñooñee nag mandat nañu leen dépôt yéen i kaay gi di sar dañu xibaar naa ñu Sadio Mané dafa daal di blessé ci match bi nga xam ne nag moom la Bayern doon amal niki démb Sadio Mané dañ ko touché ci genou bi yéen i kaay gi nag nee na mbir mi nag mën naa bañ a garaaw waaye nag li nga xam ne moo doy waar ci mbir mi yàggatul dara coupe du monde bi ñëw yéen kaay gi di sunu lamb xëy dañu xibaar naa ñu Siteu ak Papa Sow bi nga xam moo doxoon seen diggante ñaari mbër yii kenn ku nekk dagg nañ la million ak